ñoo ngi baalu àq ñëpp di masawu ñëpp ànd ak ñoom ci tiis bi ak naqar bi li nit ñi war a xam nag mooy fédération sénégalaise de football ñoom ñoo organisé woon match bi nga xam ne moo am ci suñu diggante ak jaraaf. match coupe la match bi comme ni ñu koy waxee laata match bi am na lu xew ci biir match bi am nañu lu xew ci après match bi tamit am na luy waaj a xew li xew avant match bi wax nañ ko ci nasaraan mooy. ñoom bëgguñu woon match bi mu amee fii ci Géejawaay def nañ pexe yu nekk ngir bëgg ñu génne ko fii ñun ñu ni leen fii lay amee ndaxte bëgg nañ supporteeru Géejawaay yi ak sunu dëkkandoo yëpp assister match yi ñoom defee wuñ ko noonu place yi fi nga xam ni war naa am lu ëpp téeméeri place ak nangam juróomi téeméeri place ak nangam ñoom ñu ni daanaka ñeenti téeméeri place la ñu ciy jox foo xam ni war naa am euh, ñeent fukk ak lu topp ñu wàñjiwaat ko noonu ci misaal donc pieds yi tamit ñu seeral ko ba nga xam ni ñenn ñi mënu ko malgré tout ñun def nañ lépp ngir bëgg waa Géejawaay ñëw assister marché bi fédération yamuñu ci loolu ndaxte bi ñu limité place yi bëgg yóbbu foofu ou autre chose ñoom tamit arbitre bi tamit bi mu ñëwee duñ ni am na ay erreur yu am ndaxte penalty bi ñu sifflé am na lu ko sabab ndaxte am na koo xam ne moo jëloon ay xon ni da koy yóbbu ci kii ba xeex ak ay am jour yi ni ko doo ko yóbbu mu jël ko ni da ko fay yóbbu ci loolu la coow amee ba coow la amee rose rouge na ci ñaari jour staffu jaraaf yi ñoom doo dugg ci terrain bi ak leneen loolu bi loolu weesoo ñoom waa jaraaf toujours munoo ni jaraaf fu mu fubalal ak fu mu mënti def waa jaraaf indi fa coow jaraaf bi mu demee Louga gis ngeen li fa xew jaraaf boo ko fekkee am na match bu mu fubal ak Pikine àggul jaraaf kum jaraaf ak kan ak ñaari match àggul jaraaf Louga jaraaf Tëngéej jaraaf Agel jaraaf ñëwaat fii ci géejawaay bi fii ñëw gis nga ni mel ñun jàmm ak teraanga lañ leen ji mais ñoom ñoo dugg ci terrain bi ñoom ñoo njëkk ñoom même tribune couverte bi même ci loge bi ñoom ñoo fa sànni fumigène ba toj ay bopp ñoom ñoo fa sànni ay xeer loolu lépp am na loo xam ni photo yaa ngi fi journaliste yi gis nañu ko donc boo tane jaraaf ku xuloo ak ñoom munoo xuloo ak ñëpp te ñëpp yow yaa leen di gagné looloo am donc nag on se pose des questions lan la waa jaraaf ñoom lan lañ yabe nit ñi wala ba xam ñoom ñoom moom footballu Sénégal bu dee ñoom dañoo bëgg ñu jël championnat bi football bi yàlla dogal na ni football bi léegi ci banlieue bi la nekk jaraaf Pikine la géejawaay la tëngéej la ak ajal la jaraaf bokkatul ñoom nag ñoo ngi def lépp ngir gàllankoor nit ñi ngir galgal nit ñi. te tey liñ ko waxee peut-être que footballu Sénégal ci côté boobu loolu lañu ay match interrompu te jaraaf tout temps moom lañ jox vainqueur li fi xew nag ñun am na ci yoo xam ni duñ ci xuus duñ ci sori mais lu ñu fàng kenn du ko jeex ñun suñuy supporters yàquñu match suñuy supporters sànniwuñu xeer suñuy supporters duñu yàq encore suñu stade. suñu stade boo leen génnee fii ci gis gisi biti gis ngeen ni ko waa ni ko waa jaraaf def soo génnee environnement yi tamit gis ngeen ni ko def arbitre bi tamit ba ñu tegee match bi bay dóor penalty bi du booy ñoo sànni lacrymogène la ñu sànni affaire bi ñu kii ko léegi nag dañu bëgg ñu xam ci dëkk bi dëkku yoon la ñu nekk sport la ñu woote jàmm ak salaam la ñu woote mënuñoo ñëw ñun ba fii ñu toll nii xeex géejawaay ba nekk fi ñi ñu naan war nañ jël championnat war nañu jël coupe ñu fi indi coow donc loolu daal la ñu bëgg tey population Sénégal bi ñi nga xam nekk nañ fi ak doomu géejawaay ak sportif foo mënti nekk nga xam ni coow li lu mu mënti am ak lu ñu ci mënti yuuxu noonu la demee. waa Médina ñoo fi ñëw tooñ ñu ba pare yàquñu ba pare bëgg tamit dëkkal ñu fu ñu dëkkul loolu lañ fi kii di jéggaluwaat ñëpp di masawu encore li nga xam ni sunu directeur stade gis ngeen li ko xew dóor nañ ko ba damm loxoom ñu koy masawu. muy Ibou Dieng bañ ko defee ba pare ñu dem nit ni Ibou Dieng moo xeex mu kii te wóor na yàlla image yaa ngi fi moom dóorul xeexul donc loolu ñun ñu xam ne géejawaay fii ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi jàmm lañ fi bëgg jàmm jooju lañ bëgg séq ak jaraaf moom la ñu séq ak Pikine moom la ñu séq ak ñëpp wasalaam. donc euh, question yi ñu fi posé euh, benn bu njëkk bi mooy estate bi nga xam ne fédération euh, sénégalaise de football dañoo jël. ndogal ne Guédiawaye dootu fi fubalati benn match officiel loolu moom dañuy leen di wax leen li xam ne moo leer te moo mën a stade bi ñun ñoo ko moom ñun ñoo koy loué mairie newul si loxo suñu mi loxo la ko mairie bi teg bu ñu fi teree fubal dootuñu nangu benn compétition fiteel bu ligue organisée wala bu fédération organisée di ko fubal fii Ibrahima Boye dootuñu ko nangu et plus sax danañ jéem a xool autorités yi nga xam ne ñoo doon permettre ñuy fubalee ji fële à Amadou Barry match yu yeneen division yi ñu gisee ak ñoom xamal leen ne football géejuwaay la ñuy xeex foofu tam buñ ko autorisé ci loolu moom loolu moom dañ si tox suñu xànk tubéy te nañ si def liñ si war a def ba loolu du am beneen question bi mooy question bi nga xam ne laaj nañu ko mooy euh, directeur général ibu Dieng ñu ngi koy masu si gaañu loxoom bi nga xam ne dañ ko damm depuis trois jours yëpp ñu ngi dem police ak ñëw tey dañ ko woo si bërëbu euh, yi nga xam ne dañ siy déglu nit problème amee tey moo ñu xaw a tardé nii sax fa lañ nekkoon pareegul wuyu donc mënuñu xam lan moo fa nekk mais bis bu ñu si amee li nga xam ne mooy li ko fa yóbbu ak lan moo tax ak ka ko fa yóbbu dinañ woo wax ak ñoom parce que am na loo xam ne waa Guédiawaye duñ ko nangu ñun duñ ko nangu kenn dirigeant yi fi toog ñun ñi ñëpp ñuy jël doomu équipe bi di ko sànq koo xam ne dafa liggéeyal équipe bi defal équipe bi lu nekk guddeel ko fanaanal ko ak ku mënta doon nag ki ko fa yóbbu bu dee daf ko yóbbu si loo xam ne du yoon équipe bi dina daje te dinañ tënk dañ dal sa kaw bi si yàlla àndee donc loolu bu leen sax yàkkamti bis bu si amee lu leer ñoo leen di woowaat fii wax ak yéen si question parce que dafa loo xam ne jëluñu ko à la légère beneen question bi nga xam ne laaj nañu ko mooy euh, si réaction équipe bi bu dee dañ ko daan suñu match contre Jaraaf. ah loolu bu amee comme lu mu leen wax kuréel yi dañoo bari kuréel boo gis am na kuréel bu nekk si kawam bis bu kuréelu fédération ne match bi jox nañ Jaraaf ndam li mais ñun dara mënuñu tere ñu dem si attekaay bi nga xam ne moo gën a kawe mooy tribunal bi nga xam ne moo yore affaire u sport te nekk fële si Lausanne en Suisse dañ fa dem yóbbu fa dossier parce que jaral nañu parce que nag dañoo xeex ba egg fii c'est pas évident waaw munoo nekk yéeg daaw bokk si quatre premier yi ren nga bokk si quatre premiers yi dem demi-finale ñu bëgg la xañ ascension boobu lu mu jar pour ñu delloo la si yoon dañ koy def ba ba ñuy dem taas nañ fa dem fi mbaxane ne benn ñu woo ñu woo fédération ku nekk lay ah ku fa yàlla jox dëgg na nga xam ne yaa dëgg mais duñu ñu bàyyi. beneen question bi nga xam ne président ab Abdoulaye tontu na si mooy euh, li ñuy li ñuy stéréotypé maanaam di jox portrait boo xam ne du ñun. du waaw aywa président aywa waaw dama dama euh, dama bëggoon euh, tontu tuuti rek ci li suñu. jarbaat bi wax léegi Salamata bu RFM ci maanaam euh, dégg na ni wala seetlu nañ ni ñi ko seetlu nag ñoom rek ñoo ko gis euh, que équipe bu banlieue bi te yooyu buñ koy wax en général ñun ak waa Pikine ñoo tax ñuy wax malheureusement nous sommes les ñooy ñaari équipe yi nga xam ni bu ñu wax rek ci liy indi public ak liy dundal footballu Sénégal ak surtout Dakar ñaari équipe yooyu def naa ni bu ñuy joxe kee lañ jox un jox léegi nag doomu aadama xale yi xam nañu bu nu baree am na ful bi nu muy toll dañuy naqare canaliser ba tax na ñu dëkkal ñu fu ñu dëkkul naan bu ñu demee ba yaakaar ni match bi ñu ngi koy bëgg a ñàkk rek ñu indi ay tànk bukki pour ya xajamal ko ba match ba du sotti loolu ma yaakaar ni dama leen di wax ni rek ñu delluwaat suñu xel ci lenn mooy ma dellu si leen ci saison daaw saison daaw bi gis ngeen ni GFC ba aller bi phase aller bi ñoo nga woon ca kaw ñoo nga ca kanam premier mais bi ñu demee deuxième tour bi phase retour li ñuy wax phase retour bu ñu calculer point yi ñun ñooy ndaare maanaam bu ñu deful bu ñu amuloon ay poñ yu bëree bari bari bari bari ci aller bi kon ñun dañuy dem dañuy dem en en en en Ligue 2 ndax lan ndax daanaka joué nañu phase retour bi yëpp ñaari ndam lañ ci am ñaari ndam li ci des yëpp dañ koo perte wala ñu mat si nii ren gis ngeen ko ñu defaat même même yoon wi lañ jëlaat nekk deuxième bi parce que avant dernière journée bi GFC moo doon premier. ci deuxième journée bi la ko lañ la la lañ ko lañ ko lañ ko jiitu dégg nga mais phase bi ñuy wax phase retour maanaam ba ñu dellu si mooy match yi nga xam ni mooy deuxième kii bi euh, retour bi daanaka ñaari ndam lañ ci am. yeneen yëpp daanaka dañ ko ñàkk walla ñu témboo te amul benn match ci ren amul benn match bu ñu fi gagné ci championnat ci championnat fii ci Guédiawaye ci Ibrahima booy du amul benn équipe bu ñu fi mën a cité boo xam ni coo am na ci du daaw du ren kon bu doon ñun bu ñu bëggee gagné rek bu ñu bëggee gagné rek dañuy dañuy xajamal xam nga dofuñu di dem ci ay dëkku jàmbur naan dañuy xajamale match kon fii la ñuy xajamal te fii la ñuy ëpp lu ñuy dóoree parce que nous sommes la meilleure équipe du tournoi qui voy nous sommes la meilleure équipe qui voyage. Mm-hmm. meilleure équipe depuis daaw ñun li ñuy am ci ay ndam ca ca biti amuñu ko fii ci Guédiawaye ba nit ñi sax ñu ngi ci xalaat yeneen est-ce que duñu seetaat suñu bopp ndax ay africain lañu ay sénégalais lañu ñaari ndam la ñu am phase retour te ñaari ndam yëpp amewuñ ko Guédiawaye ñaari ndam yëpp amewuñ ko Guédiawaye keroog lañ fi doog amaat benn ndam muy contre Casa fii euh, quart de finale te série de pénal de tir au au la mais championnat bi daanaka gagné wuñ fi kenn li ci des yëpp ci biti la kon te fii la ñuy gañee te ñu ñuy gañee dañuy ñibbi te dara du leen ci fekk kon kenn du taxaw nii ñun dañuy xajamal bu ñu doon xajamal kon match bu ne defe naa ne kon sax du ñu àggale du ñu àggale championnat bi dañuy jël rek teg ñu fële ni ñu yéen moom bokkatu leen. kon gàcce nga am gàcce nga la ma yaakaar naa ne ak public bi ñu am ñu mën a di dékku loolu ñu ñuy làpp ci suñu dëkk te problème du am ñu bëgg ñoo euh, solal nag ay mbaxane wala ay yére yoo xam ni di suñu yére yaakaar naa ne loolu duñ ko nangu te yaakaar naa ne loolu rafetul jekkul ci doom doomi banlieue yi muy waa Pikine muy waa Guédiawaye loolu moom dañ koy bañ ban tëdd ci suuf te defe naa ni kenn du natable di wax euh, di di nataal te tungu ni toog résultat yaa ng nii gis ngeen ko am ngeen yéen ñëpp archive yi xool leen match yi nga xam ni gagné nañ ko di ngeen xam ndax ñun dañuy njaaba njale wala dañuy dañuy indi ay njublang xamuñu ko du suñu ADN nekkul ci suñu deret ñun lu ñu suñu liggéey mayul soxlawuñu lii daal la amoon ci li ñuy wax par rapport ak seen question